xibaar yi ak seen info TV xibaar yu wér te wóor bu leen fàtte di abonné ngeen activé cloche notification bi yëkkati na lu politique bi daas na Sénégal déglu leen ma 24 heures yéen kaay naan man seeni doom kay ñi ngi des ci géej gi horizon sans frontière ma ngay xam le ni lu toll ci juróom-ñett fukk ci ay doomu Sénégal yoo xam ne ñi ngi bàyyeekoo woon ca Kayar daal dinañuy riir mër ci géej gi libération yéen kaay naan kon kaay maa mën maa ëpp doole ca Barça wala Barzak gi la ñu daal di demoon lu toll ci fukki fan ak juróom-ñaar ñi ngi nii seen gaal daal di riir mër Boubacar Seye naan ëpp nañ juróom-ñett fukk ci ay doomu aadama bokk na ci ñoom ay soxna yu sakkan lool waaye tam ay tuut tànk yoo xam ne ña nga woon ca gaal ga gaawu bii rek gaawu bii yéen kaay bi naan maan lu toll ci junni ñaari téeméer fukk ak benn ci doomu aadama bàyyee koo nañ Sénégal yegg foofee ca Espagne am na ci ñoo xam ne ñi ngi versé seen xaalis xam nga fu ñu mujjee teer ca Ngor ñi ca des daal di ca Géejawaay ñetti téeméer juróom benn fukk benn ñoo xam ne noonu màngaani moom marine bu Sénégal jàpp na leen diggante ñaar fukk ñaar fukki fan benn ci weeru octobre bi xale yi lii moo am ci réew mi Amadou ngay campagne wel ci réewum Sénégal moom ba premier ministre bi nag gàddu ay walisam moom Amadou Ba fu ko neex teg ay ñooñu nit di ko campagnal yéeni kaay bi dee média bi naan man moom Malick Gakou moom dañ koo téye ci bët gànnaaru réew mi Khalifa Babacar Sall ñu ne ko fim la moom doo fi dugg gendarmerie bi daal di koy téye te lii ma ni la njëkkoon na ci Bougane Gueye Dany keroog ba nga xam ne ca Koussanar téye woon nañ ko fa mu demoon moom keroog karawaanu bugaan ba dañu koo téye ja kusaanaa ne ko yow njiital gëm sa bopp doo dem doo dikk taxawal fii riigu Pa ci ban réew la ñu nekk réew moo xam ne mani la candidat Benno Bokk Yaakaar moom buy jàll muy campagne ak muy conseil des ministres décentralisé lépp luñ capp-cappal la rek faar ko maquillage ko campagne électorale la mani la ngir wutum parrainage mooy dëgg fu neex Amadou daal moom mën jaar waaye ña nga xam ne àndu ñoog moom mani la fu nu jaar ñu leen feu vert nag ñu tegal ko candidat Benno Bokk Yaakaar bi moom Amadou Ba ne ko jàllal foo jaar yoon la police ak gendarmerie nag di régler circulation boo xam ne ñii dañ leen di kale ñi ci des moom ñu ngi leen jàll leen ma nga woon ca bët gànnaaru réew ma moom Amadou Ba ni ki noonu ca Louga def tournée économique waaye tam politique Mimi Touré naan kon du ma tey moo ci réew mi Abdou Kader Sanogo naan dara lii daal ab rawante la ba ñu yeggee ba ca piste ba adversaire Amadou nag di daw ndax gaa yi daañu ko dab tribune yéen ne ma ca yàllay tey moom ma ngay déroulé di waaye bu mu xam gaa opposition bi nag ci naka la ñuy daal di déroulé critique yéen kaay naan man en tout cas gëm sa bopp moom ci lu toll ci juróomi téeméer juróom fukk juróom-ñaar ci commune ci mi taxaw na ca le mandat yéen kaay naan man bugaan géy dañi daal di takk moo gëm sa bopp ba mel ni sayub naanaa fas yéene soobu moom ci wutuk parrainage gi ci commune ci réew mi yëpp gëm sa bopp taxaw fa waa grand place naan kon lu toll ci ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ci facilité candidature yu gëm sa bopp day daal di nañuy soobu ci collecte de parrainage yi yéen kaay bi naan gëm sa bopp ca parrainage la voix du sud naan maan gëm sa bopp daal dinay jiitu yeneen candidat ya soobu nag ci collecte de parrainage bi bal tàkkul sagar xeeñul point ak ci naan maan Bougane Gueye Dany daal dëng la jëlee parrainage yi ca Kaffrine moom lu toll ci fukki junniy pare amoon nañ ko ba nuppi fi mu ne nag daal dinañuy ngem ñaari junne ñaari téeméer ci facilitateur quatre heures yéen i kaay naan man ñu daal di leen di wasaare ci bi day mëne la daañu ko tëj dibéer ñaar fukki fan ci weeru novembre ca Jurbel clôture populaire nag lañ koy daal di amalee ndax gaa daar daar lu ëpp ñaari junni ci parrain daal di leen koy dajaleel bugaan gi dañu ñoom waa gëm sa bopp ndeke li coow bari bari gaa suuf di collecte ay a kaay ne soo moytuwul ñu lànkal la ko niki lañ la ko defalee woon ca Kousanaar gannaaw ba ngay dem di nemmeeku ma nemmeeku kese ñoo xam ne dañoo loru am nu am ay gaañu gaañu ciy jaamaarloo diggante takk der ak askan yéen i kaayub bi naan kon gannaaw bañ lay gàntal di gàntal Malick Gakou Khalifa Ababacar Sall moom Amadou Ba ci boppam mi ngi campagne ci biir réew mi l'évidence yéen i kaay naan kon Omar Sarr ca Dagana ma nga naan kon foo jaar mataña ba ca Grand Yoff lu toll ci ñetti junni ci pare daal di la koy jébbal ni ki démb Abdou Karim Fofana ne ko jox ko Amadou Ba ndaw yi ci boppam ñoo ko dajaleel fii ci Grand Yoff waa Grand Place naan naan Abdoulaye Diagne moom lañ dénk parrainage bi ci Benno Bokk Yaakaar ma ngay xam ni gaay yi ngi def seen kéemtalaay kàttan gi dajaleel Amadou Ba mii moom mi jiite élèves ak étudiants yu APR yi ne boole xol yi mooy dëgg suñu ko deful daal lu ne li ñu metti ak li ñu neex nañ ko teg fële fas yéene ngeen mën a continuité am ci réew tribune yéen a kaay naan kon ba nii ngeen ni campagne amul yéen a kaay dee média bi naan man soxna Ami Mbàkke lu toll ci juróom benn junni ci parrain dajale na ko diggante Ndakaaru Daaru Musti Fatick Diourbel ak Bambey ak Touba terewul lii ko dajee naan man Benno Bokk Yaakaar day dooleem wàññeeku na lool ca diwaanu Matam Abdallah Ba bu coalition ba xam le ni soo moytuwul day daañu am surprise bu mag ci diwaanu Matam te surprise ba nag fi mu bi ci boppam dafa daal di tas laas yéene kaay naan kon bun Abdallah jonni daal di xamle ni Amadou Ba mii di ab dauphin la te dauphin mu jënteem mooy daal di teer ci géej te teer ci géej daanaka askan wi ci boppam ñoo lay daal di sëqatoo mu lay Camara candidat ci tribune yéene kaay naan déet Sénégal gii nga xam ne bëgg nañ fi campagnal Amadou Ba Sénégal gii nga xam ne dañ fee bëgg rangool nit ngir mu jëlaat réew mi ci loxol kamu toftaloon Sénégal gii nga xam ne feebar njiital mouvement J'aime le Sénégal ne Sénégal gii nga xam ne l'hôpital fees na dell Sénégal gii gi nga xam ne faju la a tal ka wote Sénégal gi nga xam ne njàng njàngale mi mi ngi daal di suuxandi Sénégal gii nga xam ne banlieue bi daanaka mi ngi sukuraat ku ko weddi ñëwal doxantu fi bu ñu taxawee ni Sénégal gii tey mën na tàbbiwaat ci loxol gaay yi président Macky Sall dee dañuy nax seen bopp mu laay ne coppite faw mu am ci réew mi mënta ñàkk réew mi daal di jaxasoo daal di lëj l'exclusive yéene kaay naan man ca Bambilor day la fa am ñaaw lool askan wa am na ay gaañu gaañu yu xam ne jaay doole ci wàllu suuf moo ko di waral turbine yéene kon déet ñaar fukk ak ci hectare daal la di soxal tey jii nag laa lay waral lu ni mel borom suuf sa sëriñ sooy bu sekk xamle na ni 2016 ak tey la teg loxo ci suuf soosee jënd ko yore ay këyitam ñaari téeméeri million ci suñuy koppar mu def ko ci te des ko taxaw nag wane na suuf si yëfama Dakar Times naan man waxtu woowu jàpp leen ni day maar day taali mi ngi ci buntuk Sénégal yi ak jihadiste yoo xam ne daanaka ñi wër ndoom mu Mali te aatu moment ma ne mën nañ dugg fii ci réewum Sénégal Tribune Sport naan man diggante mar day taali tribune yéen kaay naan kon ñi war a mer kay mooy sénégalais yi sénégal gii nga xam ne dañu ne fee Ousmane Sonko ma ne la mënta jël fiche de parrainage ci direction générale des élections ay universitaire di ko ñaawlu ñu ne deeta waaye yeneen opposant yoo xam ne nag ñi ngi sol seen dàll soobu ci campagne bi ñu karkaraatoo leen wër leen ndomb naan leen fii du ngeen fi jaar xam ngeen kan moo am droit jaar ci réew mi campagne ci réew mi moom mooy Amadou Ba tribune yéen kaay naan man réewum kumba média bi naan maan dal leen jàmm ci Sénégal ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm xibaar yi ak seen info TV xibaar yu wér te wóor bu leen fàtte di abonné ngeen activé cloche notification bi